su dee confiance rek supporteru Modou am nañ ko fi mu ne nii. ku muy tasanteel laa la wax ñun am nañ confiance 100 pour cent ah lu tax duñu am confiance ah. on est très confiant parce que ñun lu ñu war a def yëpp def nañ ko. parce que Modou Xarañ Lo boo xoolee lu mu def si làmb ji loolu bëri na doy na waar yaa ngi comprendre Ama Baldé nag dëgg la champion tamit mais jaaxaluñu vraiment jaaxaluñu lu ñu war a def lépp def nañ ko mystiquement on est prêt ah tactiquement on est force doole am nañ doole comprendre nga parce que Modou man démb maa toog ak moom comprendre naa quoi parce que tamit parce que tamit ñun Ama mi wa wax la rek làmb moo doy waar rek mais Ama mi du sax moromam xam nga daan nañ fi benn yoon terrain église bi mooy nag fois ñu koy daan Ama ñun Ama ñun dëgg yàlla ñu xam nañ loolu dëgg lay làmb nag lu yàlla def moo moo am mais dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu ndam sedd si sedd guy si ko Ama Baldé ci seen kàddu seen mbër moo mën foofu adversaire am ñu amuñu leen ñun waa ku ñu yor billaay soxna si na xam nañ ko baax a baax boo jëloon mbaru Pikine yëpp laa la wax nga jël Eumeu Sène nga jël Boy Niang nga jël Ama balde nga jël Jules balde nga jël Paada Baldé ba si Pape Sarr mi nekk si média yi di wax mbaj mbaj di wax nga jël Tyson ñoom Baye Boye Modou Lo day kontaan ak ñoom di leen daan maanaam Modou dëkk Pikine Modou daan Modou Lo te man maa la ko bële dimanche incha allah dama koy daan daan dama koy daan jëlaat boo ñaar tegaat ko si. instant yi ñun moom vraiment am nañu ko confiance ci suñu mbër teen yàgg nañ ko gunge ba ñëw ba dëkk ak moom loolu sa sant yàlla waa moom la ñu yàgg ndamoo xam nga moom lañu ñu yàgg gëm ndax dafa jëf-jëf boo xam ni kenn du laam-laam fii ci Sénégal. waaw dafa doon doomu gor doom doon tamit doomu gaynde waaw mu nekk roi nag barki Seydina Mouhamed bu entraîné wul woon toog këram di nelaw te Modou Lo ñàkk ñoo yab yabuñu day entraîné ji mais bu entraîné wul woon toog këram damaa bëgg nga déggluwaat li ma lay wax ñoom ñoo ni waa Pikine ñoom ñoo ni Modou Lo bàyyi wun na bëri nekk ci daara yi di dundal daara waa léegi koy dundal daara anak fayam xanaa magi daara yeeg ndawi daara yi ñëpp takku ñaanal ko mu am ndam yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla suturaal yàlla bu ko ay noonam ree waaye nag jàmm la ñu woote non à la violence lañuy la la ñuy woote yaa ngi essayer comprendre waaw non loolu la ñuy woote ñun Modou mu bëree mu daan ndam li gënu Sénégal ndam li gënu Sénégal que ça soit Alpha ndam li gënu Sénégal essayer comprendre non à la violence policiers sax ñoom non li ko ko ak Ba Ndiaye sax ñoom jël nañ seen matuwaay parce que ñoom wax nañ ma dégg ñoom policier nu mu tuddati stade bi avant stade bi ñëpp wax nañ ñoom alentour stade bi 10 000 kilomètres alentour stade bi kenn du fa kenn du fa yëngal. bu dee si cadre waa parcelle ñun amuñu benn problème waa parcelle kenn mësu koo gis dem stade Roubé ñun moom suñu suñu côté bi moom foofu moom man maa leen fay sant quoi am na respect respecté nañ seen mbër quoi yàgg nañ topp Modou ba jamono Modou nekkul Modou ba léegi mosu ñoo dégg ñu na supporter Modou Lo bu def lii ba ne ko ñun bu naree def sa dañ si xool si Modou quoi mais cadre ñoom kay ngay wax. waaye ñun moom bu fekkee ñun violence ñun moom jàmm ak lañ jàmm ak salaam la ñu woote nañu dalal dañu dalal jàmm ñëw seen koñ jàmm fekk leen duma leen daal leen jël bu am sek wét moo maa ko ñaan yàlla defal ko jàmm bis bis ba du ko ñaan du ko ñaan avant bis ba ñun nag on laisse pas notre roi Mars avec Saul on es derrière des Modou on est derrière toutes les familles de Modou Lo on supporte Modou Lo jusqu'au bout quel que soit les euh, problèmes nous Modou Lo mooy suñu mbër. dañuy loolaa wax ne ñun ñoo maa tax di wax ñun dañuy xumbal si kaw si biti si suuf. xeex lu garaaw xam nga waa ji na ni ay ran bin pax yooyu lay dëgg déglu lii nan dem parcelle seeti Modou Lo kindal kindal rat ki capital përëpa njabax njabax hôpital para njabax kin cer ki njabax cer cer loolu dafa garaaw.